xool ni maam maqaama yaag mayamu am di xaar nga ñëw ñu man ko xam amoom mbaay Abdoulaay góorgóorlu mooy tax di xam jërëm ci suuf leen nar na ndam di nag ndamam jiit nag juddoom amoom mbaay Abdoulaay bu doomu soxna mu fanaan dem nga fanaan fanaan boo lekk sa cër ko song nga daan amoo morom baay Abdoulaye waaye góorgóorlu mooy tax nit di xam jërëm ci suuf ndeen na ndam gi na ndamam ci nanu juddoo amoo dong nga daan amoo morom mbaay ay baay manoon nga woote nguur ba faaw di noon say nag di daw di la dawal ngir bëgg nga raw amoo morom mbaay ay waay manoon nga xëy woote sa kër ñu lay wayal maam ba fajar na ku la démb dafa am koo message ni ma Abdou si dama koo seetlu bu baax waaye dafa am lu ko dal man ko lan la mu ni ma yàlla na ko yàlla fa cat waaye li gën a jafe cat mooy defar ko di sant bu baax nag taaw bee toog di ma sant di di di delloo njukkal Babacar ndax li xew démb ku gis xam ne bokk boole ko mën a boole kon yàlla yàlla def cat dafa guddi waaye dafa am kàddu yoo xam ne Mouhamed Diallo da ngay jóg santal ko Serigne Fallou mii ñaari cëri sëñ Fallou yi nga xam dañoo takku Abdou Aziz yóbbaale Mouhamed Silla yóbbaale As Ndiogu Mbaye ndax jataay bi yombul te occasion dafa jar a profité bu ko dee ñu sant leen mu ngi nuyu ñëpp waaleykum bi ci yaayam ju ji ak kilifaam yi teew nee na ngi sant ñi fi teew ñëpp ñu ngi wax ni moom miis moo fekk si woon soxna maam bint di yaayu maman mii ci kër gi ñu nekk dafa lu tolloog fukki at ak ñett nee fukki ak ñett yooyu mi ngi seedeel ñi toog ne kenn musu leen a at musu ñoo werante musu ñu leen a teg di leen jubaat dem nañ ba bu ñu amee lu ñu jëndi Aziz danaan ànd leen yéen ñaar miis demal nga jëli maam Binta bu jëli jee maam ba pare ñu dem géejawaay fekk seen yaay bu ñu paree moom miis yóbbuwaat ko mu ñibbi mu dellu këram toog ndeysaan nee le temps dafay wax ne moom miis maam Binta dafa xamoon na du fi yàgg mosul xool ay jàngi doomam moom mii miis mooy def inscription yi mooy jënd fourniture yóbbu këram mooy xëy jëli xale yi yóbbu leen école mooy xotti bu weekend jotee mooy ànd ñoom dem ndeysaan dem nañ ba école bu ñu leen woowee def convocation woowee maam Bintu na ko maam Bintu war nañoo dem école da ko naan ah miss yow demal rek nee na mi ngi waat na li muy wax am na seede te Abdou Aziz da ngiy toog mu leen di wax ne maman mii du mu duggee ci ay loxoom ba tey ji jaaxlu ko réeyul xale bu ragal a ngi nii da koy wax tout le temps maman bàyyi du wut lu neex nit ndax dafa bëgg lu neex nit ba ba dafa ragal ndeysaan da lay ragal a frustré na day wax xale yi ñoom à chaque fois nday njaay ngeen respecté yépp ma man nee fan yee dafa taxaw dégg mu naan leen dugg leen ci biir soldat bi musigi na ko ah maman kon di nga wax ilimaan na ah, ko ah maman parfois mu wax di li ngi leen di seedeel ne xale bu baax la jaaxalu ko wëriwu ko su àndeek nit ko mu ne ko sa ànd kii neexuma mu daal di koy dakkal ñu ngi koy jiiñ nee na mi di ñaan ci yàlla yàlla na mel ni yaayam jaaxalu ñu fi fekkoon rek la xam ci moom nee na sëñ Babacar nii nekk na nekk na France di faju moom ilimaan mois maam Binta yor leen ci këram pendant quatre mois. musu la woote di leen seet wala muy lijjanti. te Aziz xam na ci dara. nee na bu ko wóoluwul woon bés bu set mu woote. waaye da koo doy sëkk. moo tax mu baleen këram pendant quatre mois. ñu nekk fa. te ba mu dellu see. tekkul dara ci sopp gi kon yàlla mel ni yaay fu mu jëm yàlla fa yiwu yàlla jub yàlla bu mu am dara lu ko jaaxal ñu koy ñaanal yàlla na jaboot bu barkeel yàlla na Seydina Muhammad am jàmm ju sax ci barke ñu ñaanal lépp luy jàmm yéen ñi ko jël si ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla fay. yàlla na leen jàmm sonal. jërë ngeen jëf. leen ñaan saa yi moo xanaa mu ne nga gaaw. waaw waaw sécuriser dañuy sécuriser suñu aawo yaay suñu yaay aawo yaay ay jajaayu leen way wi may way man koy wëgaayoon man de boo ci duggee day ëpp ñu xaaral ah, laxaat laxaat beneen bi la beneen bi la yaa ngi jaawale Otu nelaw <laughs> otu nelaw. Dama ko ñëw mu toll nii. Mama mama. Daan nag fi yàgg daal nag wér ngay jàpp. Ah, affaire famille lañ dem. foto naa leen ak bëgg foto. waaw. jërëjëf sëñ Fall jërëjëf. arrière bi arrière. ah gërëm. yow da nga ni demoo. waaw ok maman Ndiaye léegi fi la dëkk de. ah. bu Ablaye lay kenn yàggee. gis nga ba gis nga yaay Ablaye. ñëpp nekk si seen Ablaye bu baax moo waaye bi eh, dama ko gis léegi rek waaw naa ko gis nii defaat ko bopp bi Amérique ak Gane. donc ngay génne rek su